aywa tol aywa mad aywa liñom aywa dakar ay dakar jangi way kay jënd ci limo gi tol gangi dakar sama kala ci lo nek yaang ci jaamu yow lu bon li nga jaay suñu bundu koñ bi ha ah, xana xamone fi sama papa mako mom deng lu mala wax sama bu reuy bi dama bëgg nak nga juk jël sa yifrox yi genn ci xat aywa mad aywa tol Aywalingom, aywa mad, aywa tol, aywalingom, aywa ñu la jëm ci tol gaangi ni wa. Wa gala, gala xana ko ya lay waxal, deglu ma fi la la wax, dama bëgg nga jël sa yu ban yi, genn ca xaj la la wax. Fi sama pap moko mom deng la ma la wax, sa yu ban yi, gennal fi la la wax, yow ko rew nga la la wax. Yow yabaate bay bëgga dee. a kon yow man ngay waxal. Kon nit nga ni. Ah, ma ngi jéglu baax soxna si. Yalla xamna ni kan ni bi la gisee nga taxaw mbaam laa la tegoon yow mbaam mbaam xiixoo moom laa la tegoon maa ngi jégalu bu baax loo bëggoon nga ne yow waa gala gala man ngay wax mbaam yow xanaa man sama papa président la ah nga may wax mbaam dangaa rew ba bëgg a dee dama ne nga jug fii laa la wax génn koñ bi fii sama koñ bi sama papa moo ko moom ಬೆಂಗಳೂರು mana wah, ನಲ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಕ್ಸ್ ಬುಂಗಂಡ ಬಿ ಕುರವಂಗ ಬಿ ಬಗಡ್ಡೆ ಮನ್ tat satu ya Ah, gone ke nak yam ngi bëgg dépasser nak té man duma sa morom man ak sa bay di gel 31 décembre Desember, muisol dal bul muluki luqi di di kajj xéer di kajj day mbaam yi deug lu nak teman bëgg na sama kanam nak nganing ne ngunu waaw na eh man a yow ñooy wax dégg nga nag man a yow ñooy wax sama papa moom bu ko dugal ci wax ji moom waaw boo ci dugalee sama papa nag léegi ma jëflante ko ak yow yow da ngaa réew bay bëgg a naa nee naa la sama ko moom te su ma neexee fii doo nekk dama bëgg nag nga jug jël sa bagage génn ca xaj wax loolu laa am la may wax ak yow. ay mbottu nawet ay mbottu nawet tey ka maa bàyyi te nga def ngox-ngoxi feneen may wax naan sama papa yow sa papa dem nga ci katu foos parce que dem loolu nga ci suñu foos bi maa suñu douche bi fan yëpp amuñu douche mu def ak boppam bu gudd boobu di lampu. ni potu làmp yow sama papa ngay xas maa ngi ni di woo sama yaay togal dégg bul dem de bul daw dara yow bul daw dara yow ya, maa ngi ni woo sama yaay xaar ma rek ma ñëw dama ne nga jóg fi laa la wax sababu leel bi di mel ni romali kan ba yow xanaa lii moom tracteur ma fi jaar lii kay tracteur rek ma fi man jaar gis nga gis nga vraiment sa duma dem wuti tol de sa bopp bi lay bay bay kaa nek pobar ni retu ja ci am xaalis taw bay nga ci fos xam nga trop bopp guddu bi alaykum gona gi lan nga tek sama chat bi sama chat bu yaayam bi lan nga tek ak mom waaw lu la bëgg xam nak ay wa tol tol wa dakar dakar jangi ay wa tol loolu jàngi eh gone gi xanaa ko yow lay waxal dootuma fii laa la wax sa bopp bu rëy bii lan nga ci def sama caatu yaayam bii laa la bëgg a xam nag waaw te nag dootoo ko defati nag tey di nga xam ne nag kii nga ko mag mu réew a réew a réew xale bu réew nga waaye di nga xam ne fii nga may fekk tey ah d'accord kon mère man ngay waxal ah maa ngi jégalu de maa ngi tuub bu baax pourtant nag bi ma la gisee rabu Fatick ba laa la tegoon ci ngëz Fatik fa Yoli ba ci ngëz yow ya li bu nekkoon sa nday di nga wax dama ne lan nga ci tek sama caatu yaayam bi la bëgg xam bam mu di ma clamé lan nga jote ak mom ah ma ma ngi jégalu baax ma ngi baax a baax ah sa da jotté wuñ dara da ñëw fi di wanewu uh. waaw di jaay na daa rafet waaye nag moom li yor da tuti tata mi dañu tuti man nak wax dafa leer neena ko nak del lek di nan fonde waaw di lek ba sour ndax fu nekk ni yow ya, mom ay tata dama da firi nga yor manam ay tata bullet pour dama da nga yor légui nak bu ke fonde nak da koy da koy may yaram dégg nga ko jox mu lekk way nek ni mom dama da firiñ la may saf ah yow nak ya na fen nak, sama dom ji sha allah taarkàllaa am lepp jonga ma pire 100% ah di jënd batal pété pété yow nak da nga iñan nak néna na nga jogi fi neexu la bëgg laa gis sa kanam gu ri gi yow ko loo xool xam da ngay umé ah mère sama kanam gi day umé ah ba yow mi de ko la xool xam ancien modèle nga de ancien modèle nga de temps ñom ñoom Nokia pen xam nga Nokia pen moy téléphone yoy di tak euh, écran bu zone bi temps yoy nga de yow mi ko xool sa kanam gi xam ne dangaa doxo dox dox ba jeexal tak waaw sa gibin gi ni ma gis ma bu ba jeexal tak amo ay bëñ sax xaw ma nga wattu xaw ma nga leen xaw ma def ni ay man mer dal man xolal man li rek ay mer li nga sol di moy la dama ne nga dimbali ma laa wax li ma def ni moy check down dafa xew mom la riana def mom la Nicki Minaj di def yow dama koy def bam bax mau ndax man dama ko baye ben xalé deng la lu wax sama dom ji nak bu ko waxate dara lu ko takkar nak naa ko jëflante ak yow te dama bëgg nga jël sa bagage yi génn ci biti guñ laa gis da ngay umé la la wax xalé bu rew nga ay mère nak yang ya khas, nak, ndax yow mère mën nga ñu takk la courant de courant rek nga may saf ndru kan courant ren nak mom magal tuba gi mo xamna ne sa yoon bi yoon bi dina neex ah sabab bi nga ila tuba la Assalamualaikum, salam euh salaam boy euh ma ngi jégalu bu baax de dama don tiktok sax eh, la nga bëggol ma ngi jégalu bu baax baax tamit nak maam boy gamay wax pourquoi pas waxoo bébé wala chéri wala mon cœur wala sama cus-cus wala sama coko-coko wala sama chocolat sax au moins boy dédé bu lu xat loolu dégg d'accord wa baxna bëggo lolu wa baxna amul problème bal ma ak bal ma ko bu ba ma nga maa ngi tuub lan nga bëggoon gis nga man nak ñu may wax mère Piré mère Piré la tuddu dama la gis rek nga nekk ci koñ bi nga neex ma ma gis la nga jantal bo am tias am sa dënd bi fess del ak li ngay entraîner ma bëggoon nak nga jël ma nak jël ma ba ci kaw wàcce ma ci suuf yóbbu ma ci étoile dugal ma ci place yi baax yi xolal dima tuccu tuccu bama noy bu ko defé ñu yëkëti ma ba ci kaw ba ñu yaakaar ne damay daanu nga kapte ma ak say ñaari wèn naan na mère piré affaire bi yaw la xolal nga duggal ma ci ruq yu baax yi di ma maase di ma tëpp-tëppal xam xolal dima tuccu tuccu ma yërem dajima ma ma rek ma batré yaa ma xam la ilaha illallah nak tay nak man nak jomi nag nak tay nak la jomi na ngeen nangante vampire yaangi ci digg dekk bi di doxaan nangante wa gis nga de kon ni ma ko waxe rek dama bëgg da nga jël ma di fo ak man di dal samay cus di dal samay affaire ya ma gëna xam te bama ma nak nag dóor ma daanu bul bay dara mu sedd di ma di ma raay lol laal samay cus ya ma gëna xam yu neex yooyu dal ya ma gëna xam man yooyu ñoomee daana la ma gëna xam te yow xam na nante nga do dof dimbati xaalis moom darat darat dara maa ngi ci yor morom ngay manyar-manyar lu di mana rap. Mo <laughs> bal sa gue nak, kenal naa ne ini, mu nekk nii barde nga ndax amna ay ans amna lip, lépp yaa ma gën a xam jaana ba taal bete bete donc bëgg xolol nga def li ma da bàyyi sago bi nag dégg nga nanteel nag yow tamit nag anteel nag ñu ñu laa gis yow bay baar yow ana say bañ yow ay bañ ji damaa bëgg nga réglé nga jaar làmmiñ bu neex ak gi. gis nga mère mag ba amee sutura moo ko may boppam damaa bëgg nga dem jaamu ji yàlla sa wéy bukk yi nga posé nii dindi ko waru la. waxna lool nak may wax saya as, dama am ay ans ani say ans yow sa taaki ma gis ni ginnaaw gi demee luñu passé dama nga dem kau ma ji yàlla la wax da wax sa kanam nga góor gi xer ba ca ngor yow kaw kaw nga rek man sax mako def am ni fekk kaw kaw melni yow di dugg ci mom te yow bëggoo lu baax ci nag fayda bëgg ya bëgg lu bon rek togal ni rek nak falas class maire bayima ma te nga dem posé ji ay bañ may wax ma ko maase yow fan lay maase ci yow sa yaram bu ndëb bi di mel dayu nag gis nga man nak do ma xasté xalé bu rew nga man maire fi rek ku ma xamal kon mi deg nga ma deg nga ma la wax man nako def nak fekk daf bu melni yow diko jema jéem dugal ci milieu bi diko jema nantel nak nanteen nag wa lolu dang koy wax xaj yi ak golay ndax yene bokk generation man duma sa morom te dama bëgg nga jóge sama këram ngay mel rabu Fatick ba té nak na la jox ben secret jëlo ci bëñu fas yi wala ci bëñu mbam yi nga posé ndax ci gémmiñ gi yaatu ba melni ni mbeur mbër xaj ci sa kanam gi na ngir yàlla nag yàbbaaral ba melni payon le ba toté bo xéss ba tét dee ko